tërir nañu tërir nañu barque bi quoi. 30 jours quand même c'est mais finalement dafa gaaw. waaw 30 jours quand on a supporté de. mais nag quand même moi j'ai jamais vu un mois de Ramadan aussi béni au Sénégal. oui. vraiment vraiment il y a, il y a tellement heureux dans ce mois-là plus d'harmonie alors que moi je maa ngi doon xalaat ne que dina Euh, avec le ramadan élection bi ça va ouais, être difficile ouais, ouais. campagne bi day difficile mm -hmm. c'est terrible hein? moi j'ai trouvé un mois bah même nous ah ñun li nga waxee tey trente jours ñu ngi fi tous les jours mhm. malgré la fatigue on, on vient tous les jours à onze heures il y a quelque chose quand même de de bien mhm. que bon c'est un pays résilient quels que soient les problèmes, les difficultés, on s'adapte. On s'adapte, on s'adapte. On se retrouve et les gens tiennent euh, quand euh, bon, la, la baraque. Maintenant, c'est vrai que c'est un nouveau régime. Maintenant, nous aussi, on va s'adapter. On va s'adapter. Bon, voilà. l'homme, le disait Sartre, l'homme est situation. Hein? L'homme est Bon, il faut composer, pas, pas non, pourquoi Sartre disait que l'homme est situation Parce que c'est c'est dans une situation euh, présente bien définie ci ngay mën a xam la résilience de la personne vous comprenez un peu weeru pour pourquoi ngay def dans dans ta tête dama woor et que dama war a conserver sama énergie dama war a def lii dama war a def lii ba heure dog mais loolu mooy situation bi élection yi campagne bi dañu woon mënta nekk mais nekk na te ci biir weeru koor la nekk ci juste pour dire que contexte bu ñëw nit ki dafay soppaliku ba mel ni kàkkatar ba mën a ànd ak euh, système kii boobu situation boobu boo ko mënul bon da ngay doo ci génn ah monsieur le maire. boo ci mënul doo ci génn. quand y a le vent ñu jël suñu ay écharpe jël suñu ay kii génn dem joobi bu tawee nga wut sa yëre yëre toile génn dem liggéey mooy situation bi rek. bu dëkk bi méttee tamit nga serrer la ceinture. dëgg voilà merci Birama merci beaucoup doyen Albert et merci à mes co-débatteurs euh, monsieur Kébé ak monsieur Ndiambé maa ngi leen di nuyu euh, nga may ma nag ma def une petite digression j'ai pas eu l'occasion depuis que bi ñu agressé madame la directrice Maïmouna Ndour ma ñëw fii euh, j'avais fait ça à vive voix à Mamadou Awa Ndiaye mais ma delluwaat ci pour masawu leen di ñaan yàlla aussi loolu fi am gëj fi wala bu mu fi amati ñaareel bi aussi nga may ma ma euh, jaal surtout ou bien ma massawu njabootu euh, feu le premier ministre Boun Abdallah Dionne et aussi le ministre Maguette Thiam feu Maguette Thiam bi nga xam ne tey lañ koy denc euh, ñaan yàlla yàlla xaare leen aljana di jaal seen njaboot am naa ni j'aurai l'occasion aussi de le faire de, de manière privée donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di wax ne am na looleen tàmbali woon léegi di wax ne euh, résilience di wax ci résilience di wax lu tax koor gi santiru leen ko trop cette fois-ci c'est la particularité que dañoo def campagne électorale ci koor ba pare dakaar a surtout ñun fi ñu nekkoon di def campagne muy Dakar dafa am un climat béni ah tey boo jënnee tuuti Thiès baa nga jénn tuuti Mbour rek xam ne Dakar c'était pas ce n'est pas pour rien pour que tubaab yi tànnoon ne dañ koy def capitale euh, AOF moom avant avant moom Saint-Louis. donc di wax ne ah, voilà xam nga donc euh, da ko étudier bon fii moom Dakar c'est béni maintenant aussi euh, pourquoi les Sénégalais son enthousiastes c'est parce qu'il y a nouveau changement il y nouveau régime un nouveau régime toujours et espoir euh, et suscite des espoirs donc euh, suscite aussi un débat suscite des orientations c'est pour cela que le peuple est en communauté mais le plus important c'est que euh, résilience su peuple bi fi nga ko ma gën a gisee mooy ci euh, ci vivacité institution yi xam nga entre le 3 février ba le 24 mars li fi jàll ci ay ci ay euh, décision ak remous ak ay décision dafa wane ni tout simplement que institution yi ñoo forte nit di duñu dara institution yi ñoo fort te tey man dama gën a am euh, yàqin ne sunu réew réew bu démocratique loolu moo nekkoon nuyoo euh, monsieur le maire Banda Diop nekk médiateur financier membre PS SEM CERN c'est le secrétariat exécutif national. bu PS. waaw bu parti yow bokkoon ñu dàq PS. non man suñu ma dàq. yow bokkoon taxaw. bokkoon naa taxaw. mais monsieur le maire ñi di waxoon taxaw dañu leen dàqoon PS noo def ba duggaat ba buruxluwaat. non non non non non c'est-à-dire que am jusqu'à présent. kenn notifié et d'ailleurs maa ngi koy dis maa ngi koy discuter ak suma camarade. Ah, dégg naa da ngeen bëgg a la réunification bi nguur gi daanoo ngeen. commencé waxtaan non attends je vais t'expliquer on ne parle pas la réunification pour. euh, réunification on parle de la réunification de la famille gauche. oui mais parce que. xam nga quand vous. xam nga xam nga xam nga quand on parle de réunification du parti socialiste ñu bëri dañu yaakaar ne euh, ñi nga xamante ni dañu jënd PS nekk ci yeneen euh, entité yi ñooñu lu ñu bëgg a boole. nous on est on a une euh, vision beaucoup plus globale on parle de la réunification de la famille gauche tout ce qui est gauche. PIT. tout ce qui est tout ce qui est gauche extrême bi. mais ñële ñoom di ko woote. ñan famille gauche bi waa LD les gauchistes là. waaw mooy mooy mooy mooy la gauche xam nga dafa am la gauche radicale. voilà am la gauche centriste. am la gauche progressiste. yéen ban gauche ngeen. nu nous sommes de la de la de la gauche traditionnelle. nous nous sommes des socialistes. ñun ñooy ñi nga xamante ni ñooy héritier wu Senghor euh, héritier wu Uh, héritier bu Ousmane Tanor Dieng maintenant il y a nuance dans les gauches am na suñu ay yeneen mbokk yoo xamante ni par exemple ñu ngi ci yeneen euh, organisation euh, moi par exemple j'étais à un certain moment membre actif de Taxawu Dakar mais ñi ñi nekk ci entité yooyu am na ci ay socialistes mais aussi am na ci Euh, yeneen yeneen moo tax moo tax moo tax bu ñuy wax ñun bu ñuy wax en tout cas regroupement de la grande famille gauche nous on parle de la de de en fait. ngeen a wax réunification wala regroupement des socialistes. non c'est pas non c'est pas c'est pas réunification. c'est pas une réunification. pas une réunification parce que nous euh, aujourd'hui pour que réunification am il faut que PS am na ay socialiste yu jóge ci parti socialiste mais PS tasul parce que PS yaa ngi laaj ci léegi lan mooy set mooy secrétariat exécutif national euh, ñu ngi def ay suñu ay euh, session ñu ngi def ñu ngi def un débat interne di def suñu ay délibération donc jàpp nañu ne amul benn implosion amul benn explosion maintenant effectivement am na ay camarades yoo xamante ni cadre boobu nekkatuñ ci ñu ngi ci yeneen cadre effectivement ñooñu aussi on les appelle à re, à revenir dans la famille mais nous on n'a pas on n'est pas disloqué on n'est pas désuni on est toujours dans le parti socialiste. d'accord daañu ci dellu si waat ñu dalal Bassirou Kébé président du mouvement liggéey sunu réew Bassirou Kébé PDS dañ ko xamee woon léegi nee na mooy mouvement président mouvement liggéey sunu réew grand Bassirou Kébé yow tamit nga présenté ñu liggéey sunu réew parce que. Bassirou bàyyi na PDS dem na ci nekk conseil spécial Macky Sall ñii ngi réunifié wu dañ addeelu PDS moo gën a yomb opération ñibbisi am na de maa di nuyu aussi ñi nga xam ne lañ toogal fii surtout doyen si li nga xam ne dañ koy suivre bu baax ak ay analyse pertinantam am euh, di nuyu bande monsieur le maire mi nga xam ne aussi yaakaar naa ku ne xam na li mu def Patte-d'Oie bi mu fa nekkee en tant que maire euh, di nuyu également suma naataango bi nga xam ne nii ñoo bokk suñu Benno Bokk Yaakaar di njàmme Diop euh, maa ngi lay nuyu mais nga may ma aussi waaw Benno la waaw Benno la euh, waaw mais heureusement que am nañu doyen si Albert mi nga xam ne bu buggee bëggee dérailler mun nañu ah dellu suñu waat <laughs> dégg nga di jaale surtout nag suñu mag suñu xarit di le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne bi nga xam ne ni ku ne xam na ni c'est serviteur de l'État addunaam yëpp daf ko jox État Sénégal République senegal di ko jaalee di ko jaale jabaram euh, di jaale aussi waa PIT Maguette Thiam mi nga xam ne nii c'est un mathématicien émérite Sénégal ñu baax rek lay am ay cadre de haut cadre yoo xam ne au service de l'État la di leen ñaanal yàlla xare leen ajana di ñaan aussi koor gi nga xam ne nii ñu ngi koy jeexal ci fan yi tey ci fan yi daal euh, yal na yàlla nangu suñu koor muy kooru chrétien yi jeex ak kooru jullit gi nga xam ne ñun ñu ngi koy jeexal si nii euh, te di nuyu aussi borom kër gi waaw di la wax aussi ne waaw ñun suñu mouvement bi nous sommes d'obéissance libérale xam nga ñun dañoo nàmp ci Ablaye wat kon donc libéralisme lañ xam ñun ñoo daan jàkkaarloog ñoom bànd donc mu nekkoon opposition ak pouvoir boo xam ne dañ daan dañ daan dem avec une intelligence politique maanaam doonutoon ay dóorante kursoñ doonuloon ay gatsa gatsa oui c'est vrai Euh, c'est-à-dire que à chaque fois Kébé li nga wax doy fekk na waaw mais à chaque fois dama lay wax on a vu de toutes les couleurs xam nga Ablaye dafa créé PDS lu ne xew na waaw xam nga Ablaye dafa créé en 1974 le PDS tuddee ko un parti de contribution mais ñu accuser ko aussi à tort yu bëri yu doon xew fii ay attentat am na fi tentative d'attentat am na fi yooyu yëpp am na fi mais ni yëf yi toll woon ci année deux mille vingt et un ba bi mille suñ fa yegg quand même Abdoulaye Wade à chaque fois bu ñu waxaan da daan def li ñuy wax compromis bàyyi lenn ñele bàyyi lenn ah combien de fois la dugg ci gouvernement dugg na fa deux fois quatre vingt onze euh, ak quatre vingt treize si jeune ne me donc ñu ma dellu si waat di la wax ne la yaa ngi may tooñ <laughs> Birima mais en vérité la amoon ak léegi du benn parce que opposant yu xamoon lan mooy république la. opposant yu xamoon ku nekk ak sa méthode. waaw d'accord mais ñun suñu méthode ñun. bokkul ak bokkul ak ñi fi ñëw. di opposé wu. te tey ñun ñi dellu dans l'opposition nii suñu méthode du niroo incha allah ak ñoom ni ñu opposé woon. ak ñun xam nga lu tax parce que dañoo xam état xam lan mooy état. d'accord. te donc di rappeler ne effectivement euh, je suis de Benno Bokk Yaakaar et que en vérité j'ai j'ai j'ai depuis 2018 euh, je soutiens le président Macky Sall bi nga xam ne nii peut-être dinañ ci ñëwaat am na lu mu def ci réew mi kanam waaw mais loolu objet débat bi sax peut-être dinañ ñu wax Sénégal toog du président Macky Sall certainement mais l'objet du débat d'aujourd'hui tourne essentiellement autour de cette nouvelle équipe. Mm-hmm. bi nga xamante ni sax waxtu wi may àddoo ñu ngi amal seen premier. conseil de ministres ci palais de la république incha allah ci la war a waxtaane càmbar un peu actualité bi depuis la chute du régime incha allah Ndiambé Diop nekk coordonnateur des cadres républicains ca diwaanu Yoff ma gënoon ko xàmme ci côté Abdoulaye Diouf Sarr foofu laa ko gënoon mu ne vous en êtes ci cadre républicain yi yéen a ngi ci def ngeen seen bilan bilan su tax ngeen perte nguur gi évaluation souvent après yenn kii yu mel nii ñëppay dem ku nekk da ngay dem sa yoon quoi. doo leen dajaloo tirer les enseignements def le bilan euh, regrouper les troupes avant gars yi di égaré wu bu nga nekku les les bon merci euh, beaucoup mon frère euh, Birama maa ngi lay bu baax. di nuyu également le doyen euh, Albert le euh, doyen ñu lay nuyu comme ni grand waxee dafa nekk koo xam ne. si réew mi nit ñi dañoo nam naw xam-xam mu nekk une analyse pertinent su waxee rek donc et toujours fa nga xam ne ni boo seetloo fa la population bi jublu moom réflexion wala analyse am foofu toujours du côté du peuple rek vraiment maa ngi koy nuyu bu baax di ko jox di nuyu suma grand frère monsieur le maire muy suma mag effectivement di suma xarit aussi nekk nit bu baax ma xam ko démb xam ko tey muy ku bëgg fu mu jógee waaw vraiment. gis nga civilité yi nag moom. bu ñu moom temps bi day wante jaale na quinze minutes. di nuyu Bassirou wax wax wax na say baax baax nga bëgg a wax ay baax baaxam. non mais monsieur le maire jaale nga quinze minutes wax ay baax baaxam mu bëgg la ko delloo temps bi day jeex. non waaw waaw waaw mais bon. li may wax daje ngeen fa dafante ngeen seen i civilité. léegi allez on plonge may ma may vraiment le grand Bassirou. Bassirou euh, Kébé nuyu ko euh, nga may ma ma nuyu. waa Ziguinchor je suis le directeur euh, du centre hospitalier régional de Ziguinchor Ziguinchor laa jógee. hôpital de la régional. ah bokkul ak ñaari hôpital. hôpital de la paix hôpital régional. donc hôpital régional man maay directeur. ñaar yëpp c'est public. waaw régional man maay maay maay directeur bi. donc nga may moom mu nuyu waa Ziguinchor. nuyu ñëpp nuyu waa hôpital ba. mais aussi nuyu waa Yoff bu ma jógee. wax nga ko sànq suma mentor. suma lider c'est Abdoulaye Diouf Sarr donc moo di ko nuyu bu baax di nuyu euh, madame la directrice générale Maïmouna Ndour muy suma sœur euh, vraiment aussi ñu yàgg lool ma xamee ko aussi Abdoulaye Diouf Sarr donc bon di jaale aussi ah ni nga ko waxee euh, sëñ Boun Abdallah Dionne premier ministre di ko ñaanal yàlla ak Maguette Thiam ñaan leen yàlla xare aljana li nga wax nag si évaluation bi effectivement ñu na euh, jàpp nañ jour dimanche bi passé lañ ko doon def mais autour de du coordonnateur Abdoulaye Diouf donc il est le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yaakaar au mais dimanche bi di ñëw incha allah bu ñu wooree ba pare dinañu toog waxtaan daje évaluer euh, élection yi xam li ñu am et pourquoi nous avons perdu et cetera. les cadres les cadres yokk wala de. non non non les de, cadres de, waaw tous les responsables. de l'APR ou de Benno. de Benno. voilà donc tous les responsables de et puis ce sera l'occasion aussi pour que suñu leader Abdoulaye Diouf Sarr puisse remercier vraiment tout le monde parce que tout le monde avait fait bloc autour de sa pour vraiment une campagne. donc bu ñu demee ba affaire bi jeex il faut que mu woo nit ñi waxtaan ak ñoom remercier leen mais aussi ñu jàngat leen ba xam li ñu am. pas pourquoi nous avons perdu parce que cette fois-ci on avait pensé que mën nañ gagner élection yi. mais tout ça il a battu campagne. moi je l'ai ah, campagne sérieusement c'est-à-dire. Euh, cette fois-ci au niveau de Dakar wala. cette fois au niveau de Yoff. au niveau de Yoff bon euh, des fois doon na ànd ak euh, PM euh, comment dirais-je ak euh, suñu candidat Amadou Ba dem génn tuuti ñëwaat mais cette fois si dafa gën a concentré woon si Yoff parce que on avait un challenge c'est-à-dire de récupérer Yoff. malheureusement on l'a perdu mais on est deuxième avec presque le même nombre de voix yi ñu doon am globalement presque entre neuf mille et dix mille voix moom la ñu am ci élection yi weesu yëpp donc même score bi presque moom lañu am mais derrière euh, la coalition Diomaye mais euh, largement devant euh, comment dirais-je euh, le maire parce que le su demee ñu def élection dernière élection yi mu gagné woon gagné élection législative mu ñëw tey ñun ñu am 9000 voix mu am 2000 voix ça veut dire que y a quelque chose. c'est quelque chose kay neex naa expliquer. il ah. était de Yewwi Askan Wi. <laughs> Yewwi Askan Wi la locomotive c'était le Pastef c'était Sonko Sonko est allé seul avec Bassirou Diomaye Yewwi Askan Wi bu nekk demal nga sa bopp le résultat est là. non ça équation bi c'est le maire se disait que euh, kenn falu. waaye yo ñoo ko fal il avait son programme. il est allé voir les Yofoa waxtaan ak ñoom ñu fal amul benn coalition donc aujourd'hui donc moom yaakaaroon na il avait un poids électoral bu ko mën a may mu gañawaat ci bi mais un maire bu nga xam ne dafa dem élection am deux deux mille euh, voix mais loolu moom jàngat la daal jàngat bu bëree bëree bëri bëri lu ñu war a xoolaat la quoi d'accord au moment où euh, ñun suñu coalition am na neuf mille maire ki yéen la ko jëlee te maire bi si ñun la ko donc vraiment loolu laa si amoon mooy wax en attendant ñu dugg si waxtaan bi moom ñu koy dooree rek c'est tout simplement euh, premier conseil may nuyu aussi ah suma moom moom fils ah mu may seetaan il est au Canada Ndiaga moo koy nuyu donc là bi nga waxee ne l'homme et situation dama ko xalaat parce que <laughs> bu mu demee foofu <laughs> ah sedd bi et puis sedd la kii ma ne que l'homme doit s'adapter ak ah ah, foo mënti nekk rek ay nit ñoo fa nekk. nit ñoo fa nekk ñu ngi fay dund malgré lépp mais il faut s'adapter donc là maa ngi yu nuyu bu baax. d' doyen démb ñu ngi doon waxtaan man ni leen conseil des ministres day am. gars yi ni ma non mënta am parce que il faut ñu def passation de service ah c' est le l' inspection l' inspection d' état ñooy koy ñoo koy acté. doyen conseil des ministres mu ngi am waxtu may wax ak yow juste pour dire que ñi dafa mel ni. ci benn waaw ba sinon avant quand même euh, mes condoléances à, à la famille de Boun Abdallah ak euh, Maguette Thiam j'ai pas pu le faire euh, hier bon pour wax daal que Maguette moom laa gën a xam parce que euh, il était très proche de Amath Dansokho euh, de Sémou Pathé et moi j'étais proche de Sémou Pathé on partageait énormément Et Maguette, c'était vraiment le pilier du PIT, que, c'est une grande, grande figure euh, politique au Sénégal et une grande figure du PIT, que le PIT quand même a perdu euh, un intellectuel. C'est s'il y a vraiment un intellectuel organique, euh, c'est, lui c'est un intellectuel organique. Que depuis quand même 3, 4, 5 décennies, mon PIT, influence comme étudiant, comme élève, comme enseignant. Il a joué un grand rôle à côté de Ahmad et de Semou. Et même Ibrahim Sen, c'était son dernier compagnon. Euh, je crois qu'il mérite vraiment euh, que la nation lui reconnaisse. C'est vraiment un patriote. Bon, so Guissé Bounabdallah aussi, c'est quelqu'un que moi j'ai apprécié beaucoup par euh, sa discrétion et puis sa, sa connaissance de l'État. Bon, malheureusement, il n'a pas pu faire euh, campagne, il n'a pas terminé, mais il avait une vision d'un Sénégal de demain. Et moi, j'ai bien aimé son, son approche. Je crois que vraiment mes condoléances, surtout ses collaborateurs, Bougissé, Noumoudemé, euh, à l'étranger, bon, tous les cadres qui étaient avec lui se sont mobilisés. Malgré la maladie, malgré que, voilà, nous avons continuer la campagne jusqu'au bout. Ça aussi, ça mérite d'être souligné que c'est quand même des acteurs politiques. C'est vraiment, que ce soit Bounabela, que ce soit Maguette, vraiment, on a perdu. C'est une grande perte pour le, pour le Sénégal. Maintenant, pour le Conseil des ministres, ben, euh, si tu te rappelles par exemple l'histoire des Maguette Cham, les premiers conseils des ministres des Maguette Cham, c'était sous, euh, sous euh, Abdou Diouf. Et euh, les Maguette Cham, ils ont appris En cas ils étaient mis, ils n'ont jamais occupé une fonction étatique. Euh, le PASTEF est à la limite à cette tâche-là. C'est la même plus parce que le PASTEF, moi, est chef de l'État aujourd'hui. C'est eux qui gèrent l'État. Donc ça veut dire que, bon, Sénégal, démocratie, quand même, mouni progresse. Qu'un parti comme PASTEF né en 2014, à moins de dix ans, il gère l'État. Ils se sont battus, c'est vrai, ils avaient un projet, ils sont convaincus, mais le fait qu'un leader du, du PASTEF jàll au premier tour, ça quand même c'est un pas énorme de notre démocratie, mësul am Et ça, je crois que pour le Conseil des ministres, c'est ça le premier acte politique. Ah, le Conseil des ministres. Ça, ça, c'est, ça fait partie de l'organisation de l'État. je crois que war nañu jàng pour xam ne que conseil des ministres c'est une structure euh, capitale si tu veux gérer l'État donc euh, c'est pas pour rien que ça se déroule au palais bon il y a la structure il faut bah, il faut qu'ils apprennent à incarner l'État et le respect du conseil des ministres bon tu as un chef de l'État qui préside tout le monde je pense que loolu moom c'est une expérience nouvelle pour ñoom Mais il faut qu'ils apprennent très vite quand même euh, est la fonction de ce conseil des ministres la ça euh, ku nekk ministre tey ji war nga sóoraale que euh, conseil des ministres am na bon plus maintenant tous les autres conseils euh, il y a le conseil présidentiel le conseil décentralisé il faut qu'ils apprennent comment fonctionne l'État et je crois que loolu bon c'est une, une en partie mais l'autre partie c'est que les Sénégalais sont impatients. Ah, qu'est-ce qu'ils vont sortir euh, comme décision majeure d'ici trois quatre cinq semaines là quand même nañu xam ne je pense pas que ñu am état de grâce je, je ne pense pas qu'il y ait un état de grâce les gens attendent des résultats donc il faut que après le conseil des ministres bah, qu'ils se mettent euh, au, au, au travail et maintenant c'est vrai que aussi les gens attendent euh, les, les réformes Maintenant, peut-être pour lien avec euh, euh, la table, c'est que bah, le passé est devenu aujourd'hui le parti majoritaire. La, la coalition Diomaye a abattu la coalition Benno. Bah, que, comment l'expliquer Est-ce que la, la défaillance est au niveau du parti moteur de Benno, la PR ou est-ce que c'est est une défaillance de Benno Parce que c'est la première grosse défaite de Benno après 2012. Oui. C'est très rare. Euh, même s'ils ont perdu les locales, les législatives, c'était dans les grandes villes, dans le vote urbain. Mais à l'échelle nationale, Benno est toujours euh, était devant, même au local ou au, législatif, pardon. Mais là, la chute, est-ce que c'est une chute euh, qu'ils avaient prévue euh, Et quelle va être la recomposition Parmi les courants dont on parle, gauche, droite, euh, libéraux, mais est-ce que la la défaite de Benno ne préfigure pas une recomposition du tissu politique que que va devenir le Parti socialiste est-ce que le Parti socialiste dans l'opposition va accepter de se, de se mettre derrière la paire oui, est-ce que l'AFP va le faire ah que pourquoi pourquoi donc cette défaite et quelle est la recomposition de, au niveau de Benno la question c'est quoi la question ah. alors moi je... il y avait des prémices. d'abord et comment la recomposition sera-t-elle faite si le Parti socialiste acceptera toujours derrière la et l'avenir de Benno dans tout ça alors euh, je dois personnellement vous dire que la faillite de l'écosystème Benno Bokk Yakaar a démarré durant les locales de 2022 parce que en 2019 Benno Bokk Yaakaar euh, durant les élections présidentielles a réélu au premier le président Macky Sall avec je pense 57 58 pour cent similaire aujourd'hui au taux euh, président euh, Bassirou Diomaye à la seule différence que Bassirou Diomaye euh,

les Sénégalais ont plébiscité son euh, son son son programme c'est comme ça il y plus de léegi amul amul euh, amul ay subterfuge yoo xamante ni au Sénégal nit war na ko mën a yore ba ba ba euh, ba yàq kanamu Sénégal ci ay élections mënul nekk. le fait que jeunes yu bëri di bindu seen carte d'identité ñu bindu ci ne peut pas voter. Oui. le fait que ñu bari di wut seen carte d'identité pour voter pendant des mois xamatuñu fan lañ leen ko sànni le fait que ñu bëri war a voter le jour J fekk ñu seen tour mais loolu ay failles la yoo xam te ni mën na avantage mën na désavantager l'opposition. je suis désolé mais li ngay wax ni gisuma benn këyit bu ko mandargaal alors que man je ne peux parler. amul euh, ay jeunes yu am amul ñoo xamante ni seen carte d'identité CEDEAO dañ ci bind ne peut pas voter am na wala amul. na peut ne voter si. am na oui oui am na ñu doon wër seen carte d'identité. ne peut pas voter dem la mention ne peut pas voter. waaw loolu moom dafa la la non non la mention ne peut pas voter est inscrite en général dans les cartes d'identité où euh, la personne n'est pa euh, amul majorité pour voter.

wala am na ñoo xam ne jotuñu ci seen carte loolu il faut ñu mën a am ay ay euh, ay évidence maanaam ñu am rapport bu wane loolu mais mënuñu basé wu ci wax ça ça ça je dois le dire donc c'est pour vous dire que on ne peut pas remettre en cause la vitalité des institutions au Sénégal ça c'est un premier élément le deuxième élément j'ai apporté j'ai tenté d'apporter une réponse j'ai dit que l'écosystème de Benno Bokk Yaakaar qui a fait faillite en 2024 a démarré depuis 2022 durant les élections locales et les élections législatives. Je vais m'expliquer. Dans toutes les localités du Sénégal di nga gis élection locale 2022 des partis de la même mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakaar def 3 4 ou 5 listes. ci local ci local yi. waaw ça par exemple le cas de la Patte d'Oie est assez. illustratif. Nous, nous avions deux ou trois ou quatre listes con euh, Et en ce moment, moi, en tant que membre du Parti socialiste et de la mouvance présidentielle, j'avais attiré l'attention des membres de Benno Bokk Yaakaar ou bien de l'autorité pour lui dire que si on n'y prend pas garde ça ça va effriter l'écosystème parce que xam a vécu le même scénario. la chute de Wade a démarré durant les, les locales. et puis xam nga lu tax parce que su fekkee comprendre nga naka la écosystème di fonctionner écosystème c'est un ensemble ensemble bi ci la ay maire nekk ci la ay député nekk ci la ay directeurs généraux nekk ci la ay ministre nekk de suite su fekkee ensemble bi dafa commencer effrité wu par exemple euh, tu vois tu prends tu dans les locales euh, nombre de Euh, maire yi ñu daan am wàññeeku su fekkee dafa am ay localités yoo xamante ni euh, maire ya fa nekkoon nekk ci mouvance présidentielle bi dañu fa dañu daanu mais su élection législative yi nekkee ñëwee nañu daan defee ñun élection bi en tant que euh, en tant que euh, en tant que euh, parti exerce exerçant le pouvoir bokk on est à loolu day impacté ci législative yi ba pare législative yi même chose ñi nga xamante ni jàpp nañu ni dañ leen saboté woon ci élection locale yi ñoom itamit banque seen loxo bàyyi ñeneen ñi muy gën a dégringolé wu bu fekkee amoon na une part bu dañ ci élection législative yi deux parts yi dañ donc la seule carte qui nous restait c'était les élections c'était l'élection présidentielle mais élection présidentielle bi jël ñu jël candidat investir ko bi ñuy investir candidat boobu le président Macky Sall ne moom mooy nekk directeur de campagne am boo leen seetloo campagne électorale bi il faut se dire les choses jusqu'à présent nous on n'avait pas de directeur de campagne affiché parce que le président avait promis d'être notre directeur de campagne ce qu'il n'a pas assumé parce que en une euh, gisuñu benn yoon boo xamante ni jénn na wax ne sama candidat lay gunge wala damay euh, défendre sama candidat ça c'est un premier élément le deuxième élément mooy on a fait une campagne en douze jours. moom yéen seen morom yéen a ci am. waaw dama lay wax rek damay wax en douze jours yi ko def. course moom yéen a départ andoo ci même ligne bi. waaw d'accord non non non déglu ma noo da xam nga man damay indi ay argument yoo xamante ne ñun ci suñu évaluation la. mais boobu noonu mënuñu ko boole parce que ñëpp a départ. non yow yaa ma yow yaa d' accord. mais ligne bi non yow yaa d' accord ne non yow ligne a ñëpp a ñëpp. non xam nga xam nga yow yaa d' accord non non non te pourtant ñeneen ñi amuñu temps bu. non non non defal naa xam nga ñun dañoo comme dañoo am 12 jours de campagne. ñun kese ñoo am ci campagne électorale bi candidat Euh, boo xam ne euh, d'abord pendant que mi ngi def campagne wala mi ngi def pré-campagne am dans la même mouvance dans un parti de la mouvance l'APR ñu gis ay sons discordants moom mu ngi dem de defi campagne am ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi développé beneen slogan bu tudd par exemple Macky au cœur. c'est vrai. à dire que il faut dire les choses comme telles. yooyu yëpp dafa nekkoon ay situation handicapante ba pare gis nañu ne gis nañ fi Amadou Ba gars yi organisé nañ fi marche gis nañ fi gis nañ fi suñu candidat gis nañ fi suñu candidat dem Tivaouane euh, ñu woo ko d'urgence pour mu ñëw assister benn réunion au palais ou bien xaw ma au CEP euh, pour ñu abilité ko pour ñu jox ko di ainsi de suite ainsi donc yooyu yëpp ay situation handicapante la bon maintenant dama bëgg wax ne euh, conseil conseil des ministres moom du dara loo xamante ni bees na ci Sénégal je pense que tey effectivement particularité bi muy am solennité bi muy am mooy dafay nekk premier conseil des ministre voilà, pour une partie euh, pour, pour pour pour beaucoup de pour beaucoup de ministres yi nga xamante ni ñu ngi leen di doog ay euh, tabb mais di wax ne rek euh, ñun en tout cas man personnellement bu conseil amoon démb sax du ma jaaxal lu tax parce que je me disais que euh, conseil constitutionnel jëloon na ay disposition bi mu defee investiture ba euh, Bassirou Diomaye dissoudre gouvernement bi nga xam ne mooy gouvernement bi euh, maître Sidiki Kaba yoroon donc su ñu doon def conseil des ministres juste après le lendemain ñun du ñu jaaxal maintenant aussi li ñuy wax ne li ñuy wax rek mooy jàpp ne euh, tey jii conseil des ministre boobu immersion lay nekk si ñi nga xamante ne ñu ngi doog a ñëw mais aussi di wax ne nous sommes des sénégalais nous ne on pas en marge du Sénégal li ñuy ñaan yàlla mooy euh, euh, euh, ministre yooyu ñu tabb wala tey ji gouvernement bu bees boobu réussir mission parce que parce que réussir mission boobu Sénégal yëpp lay lay impacté yeneen yeeg soo ma ko maye bon yeneen éléments yi par exemple euh, peut-être bu ñu dellu siwaate voilà comme tu veux kon Bassirou Kébé monsieur le maire déglu nga ko def na analyse am ci xam nga Birame lu dox doy waar son son son émission est dangereuse pourquoi parce que moom dafay def nii daf lay jox parole su la joxee parole boo waxee ba cëppal moom mu jël ci benn élément jox ma ko bu ma paree mu ne kii loolu provocation la doyen dégguma dégg loolu provocation la léegi léegi Bassirou ñun ñooy bañ a ah, tomber dans ce Bassirou dama dégg euh, monsieur le maire léegi mu wax euh, analyser na ba pare ba tey analyser wul adversaire am point fort adversaire xam nga booy analyser nag. est booy ana non si dama la wax défaite bi mu jógee. Ah. wax nga li tax ngeen régressé. Ah. mais moment boobu am na ay ay situation conjoncturelle yu war a tax sa adversaire gën a am doole. gën a am doole bi mooy discours am. Mm-hmm. dañ koy gën a déglu te yéen boobu mënootuñ leen déglu parce que da ngeen da ngeen fi nekk 12 ans. boo ñëwee nii dinaa fi joxe temps d' emploi da nga naan non non non boo ko mënoon def nga ko boo ñëwee xam nga loolu ay désavantage la seen côté bu loolu weesoo yow yan aspect la souligné wul nga gis ni bokk na ci li indi ngeen perte le pouvoir. waaw jërëjëf euh, yaakaar naa ni am na benn précision de taille bu bëgg a def par rapport ak au président Macky Sall biñ koy organiser marché pour soutenir ko. boobu parce que la communauté ah, internationale ak ñëpp waaw man dem naa marché ah, kay pour soutenir ko mais pour wan la mobilu lu tax marché boobu am parce que boobu coow li bëri na reporté na élection yi communauté international bi attaqué ko tout ça donc nga gis les la presse étrangère ñoo gënoon a virulente sax que la presse nationale par rapport ak moom mel ni comme si. déedéet déedéet tëjuñu ah. tëjuñu kenn ñu ngi doon wax ñu ngi doon wax. fii ñaata yoon lañ fi Euh, non loolu. loolu loolu dañuy wax rek mën nañ ko compter. Euh, donc il fa que nit ñi aussi témoigner ko de leur solidarité le peuple sénégalais ñu ci bëri génn dem témoigner ko loolu moo taxoon mais c'était pas lié à l'élection en vérité euh, beneen bi mooy que ne suñu perte aussi dafa am loo xam ne ni yokk naa ko ci li Banda wax mooy que ne il faut dire les choses comme telles ñun dañu am manque de solidarité gis nga solidarité ci suñu biir moo doon problème bi. dund nga ko ak deux en 2012. dund naa ko. en 2012 manque tax Wade euh, nguuram daanu. non Wade nguuram gi li ko daane woon. c'est pas les mêmes facteurs c'est c'est pas les mêmes facteurs en vérité. Euh, bon y la question du troisième mandat et cetera cetera loolu ñu Macky Sall levé woon na ko mais pouvoir aussi boo ci defee douze ans ñaari mandat souvent dangay ngay dem usure. loolu mooy dal maire yeeg yooyu l'autorité locale ak ñooñu ñëpp. donc dañ naan attention ñun kat saawaay ñii liñ waroon a def def nañ ko ci 12 il faut ñu may ñu sénégalais duy fal mais day folli en vérité donc solidarité boobu mën reveniraat ci maanaam ensuite suñu comportement euh, xam nga tey nguur day jaayaate tey dañuy ñaanal ñi fi toog yàlla bu ñu yegg foofu parce que nguur dafa am ay privilèges yoo xam ne boo ko toppee rek da ngay bew mu mu yëkkati la ba nga xam ne tey am na ñoo xam ne man leer na ma ne tey pour ñu toog dem fi ñu daan dem dootuñ ko man couper tout lien ak euh, le peuple et cetera yooyu yëpp yàgg ci pouvoir dina ko indi par exemple euh, beneen bi mooy aussi euh, populisme xam nga tey dañoo gëm loo ndaw yi ne leen et soo ko ko waxee ndaw loo xam ne toog na douze ans liggéeyul wala mu am masteram liggéeyul wala baykat bi nga xam ne ni day am problème mu jiw ak engrais et cetera ak dund gu cher gi donc la question de l'emploi nga ne leen man dinaa leen gë def ngeen am emploi chaque jour ñu ne xale yaa ngi génn di dem bitim réew dugg ci gaalu looco yi nga ne man su ma ñëwee dinaa régler cette question nga ne wuy réew mi dépense yi dañoo bëri avion présidentiel bi euh, mu ngi nii li muy côté Sénégal dafa bari maa ngi xaar na gars yi ndax ñoom danañ supprimer l' avion présidentiel am déet parce que aussi daf ci nga ne ministre ah oui oui waaw waaw di dem def vol commercial c'est-à-dire que dañoo wanoon populisme la dañ doon wan ne Macky Sall dafa jël avion boppam jënd avion et yooyu yëpp discours yaa ngi fi ah et yi ñu ngi fi dina ñëw donc ndax danañ ñoom danañ bàyyi avion présidentiel dem jëli vol commercial pour dem tukki est-ce que di ministre yi ñu waxoon ne dafa bëri tey ñu ngi ko def quinze ministres la ñu waxoon ne dinañ ko ko def ñoom 15 minutes waaw waxoon ñoom. kan moo waxoon loolu Ousmane Sonko. ci discours ci programme Diomaye mu ngi ci 15 minutes. da dama ne Ousmane Sonko non Sonko n'est plus candidat. mais waaw mais mais c'est le projet PASTEF. non non y a un programme. Diomaye président déedéet mais c'est le projet PASTEF moo nekk le soubassement c'est le socle de de de amalgame nit ñi dañoo fal Diomaye bu ñuy laaj Diomaye la ñuy laaj. waaw maa ngi ñëw te bu ñuy laaj Diomaye dañ ko naan sa programme yaa ko bindoon mu ngi nii. waaw mais xam nga programme boobu. mu ngi mel ni tey nga ne woon Sénégal seen PSE fan la jóge woon ci programme yoonu yokkute le plan Sénégal émergent. c'est toujours Macky mais c'est toujours Macky Sall mais fii aussi c'est toujours Pastef et le projet ñoom ñëpp loolu lañ lay wax il te xanaa déglu woo premier ministre bi mu génnee. di di wax la composition du gouvernement ak les missions. mais dañoo waxoon réduction drastique du train de vie de l'État quinze ministres on a trente ministres et deux trente deux et le premier ministre pourquoi je le dis parce que. xam nga waaw oui. waaw waaw maam maam xaaral ma wax la ko ministre ak cinq secrétaire secrétaire d'État xam nga lan moo tax ñu. secrétaire d'État rang ministre la. muy 30. mais muy 30 le ministre secrétaire général euh, le ministre secrétaire général du gouvernement il a rang de ministre ministre la ñuy wax. Ah, mais attention kon nag Bassirou ba non ah, ah la ñuy wax. non pour man je m'attendais à un gouvernement de 15 ministres. mais réalité pouvoir bokkul nag ak opposition. donc maa ngi doon analyser force gars yi ñu ñu miroiteloo nit ñi ne leen voilà réew mi doxul mën na gën a neex et cetera et cetera mais loolu tout opposant boo ko tegee wane programme boobu maa ngi xaar aussi. ñu ngi fàttaliku président Macky Sall ba mu yoree Sandaga saaku ceeb ba. oui je suis d' accord loolu aussi c' était du populisme. mais juste non mais da leen doon miroiteloo. non xam nga du benn. Ah, xam nga populisme bii xam nga président Macky Sall il a été républicain. waxoon na ne dund gi dafa cher saako ceeb a ngi nii dinaa ko wàññi bi mu ñëwee daf ko wàññi parce que saako ceeb daf ko fekkoon a vingt cinq mille francs ah oui daf ko wàññi ba demoon na à un moment ba douze mille dix sept mille et cetera mu yéegaat mais kañ la yéegaat no non non kañ la yéegaat c'est-à-dire que euh, je pense que il faut aussi bu ñuy analyser ñu ñu def ci un peu de sérieux euh, c'est important pour man mais en vérité populisme Macky Sall mosu ko incarné. Macky Sall mosu la wax ne tabula rasa mosu la wax ne li fi nekk dara baaxul fi on nous parle d'un gouvernement de rupture. mais man j'aurais aimé que rupture boobu ñu matérialiser ko par des actes que l'on tey parce que danga nga mën a ñu analyser euh, euh, ndax gouvernement de rupture lu ou pas ci affiche bi mais pour man amoon mon humble avis boo jëlee les CV les CV parce que nee naa la sànq ñun du ñu def opposition populisme. populiste ñun opposition républicaine la ñuy def nga jël donc gouvernement bi réduire wuñ ko benn mais ñi fi nekk tey taayu gouvernement bi réduire wuñ ko mais ñi fi nekk seen CV c'est des hommes compétents mais attention le CV ne fait pas le bon ministre le bon CV ne fait pas le bon ministre loolu aussi il faut ñu xam ko beneen jàngat bi aussi mooy que ne en vérité Birima dañ jigéen ñi doyuñ ñeenti jigéen lañ am ci gouvernement bi pour trente ministre dégg nga beneen bi mooy aussi que am na ay conflit d'intérêt parce que tey ki yor éducation national ci domaine am la nekk ba yor fa privé. ki yor enseignement supérieur noonu ki yor agriculture ak élevage mooy deuxième producteur après Sedima ci wàllu euh, ganaar kooku aussi donc vous voyez parce que Youssou Ndour bi ñu ko fi nommé woon à l'époque dañ ne attention conflit d'intérêt la parce que Youssou dafa am Euh, orchestre am ba pare nekk ministre de la culture waaye moo tax ma ne la nguur bokkul ak opposition. d'accord il faut peut ci revenir le bon le bon artisan à l'œuvre. mais le le bon CV ne fait pas le bon ministre. j'ai l'habitude de le dire. mais nag euh, euh, compétence yooyu yaakaar am nañ ci yaakaar que par rapport ak CV bi mais li ci gën a am solo surtout mooy le ministre est a un cabinet cabinet boobu dafa war a doxal. ñan ñoo fay nekk tey xam nga wan nañu nañu gouvernement bi c'est des technocrates ñi ci ëpp mais boo jëlee nag maintenant ay politiciens sans compétence dugal leen ci cabinet wala dugal leen dans les directions générales stratégiques surtout foofu nag lañu leen di xaaree ba xam mais li ñu wanee gum nii ci gouvernement bi euh, mën nañu wax ne naam ci li baxagul ba ñuy wax naan day xeeñ mais quand même ndugu mi gis nañ ne am na ay ingrédients d'accord yow tamit defal sa analyse bu gàtt rek parce que daanaka. waaw bon bu daw ko pas possible. waaw mais mais di nga ma may nag ma def une analyse euh, si deux situations. kon li leen daaneel bëri na ay ay ay ay branche de. non xam nga danga nga posé sànq. question parce que dama xam ne yéen a bokk camp boo daan boo leen daanoo kii analyser quinze kii analyser quinze yow nga bëgg analyser tamit. non li kii wax. kon kon li tax li tax ngeen nërmeelu bëri na ay bëri na ay. li li kiy wax kii wax. bokkul ba tey yow si non bokk na moo sama gis-gis mais dama si gën a renfler mu si gëna a mais aussi ñëw balaa may wax foofu sax damay ñëw d'abord si conseil des ministres parce que wax nga ko sànq laaj nga si ay kii mais conseil des ministres bi xam nga dañ ne ordre du jour bi quatre points la je pense xaw ma ndax. dina ah, définir nañ ko waaw premier point ñu ne prise de contact. deuxième point ñu ne feuille troisième point ñu ne état des lieux et nomination à la tête des directions looloo ma jaaxal ah bon c'est-à-dire bu ñëwee si prise de contact c'est normal qu'un gouvernement formé un nouveau président donc puisse rencontrer ses son gouvernement ses ministre et cetera waxtaan ak ñoom et cetera feuille parce que quand c'est la vision du président moom la ñuy euh, traduire en acte a travers les ministères après les directions d'accord mais l'état des par rapport à quoi te defaguñu euh, passation yi au niveau de chaque ministère loolu jaaxal pour man loolu làmbatu état des lieux kan mooy def état président mooy ñëw wax ki mais ñuy def état des lieux est-ce que du est que du est-ce que non ci ministère yi mais président am na lu mu fi fekk xam na ko waaw ki mu wuutu am na lu mu ko ni lii lañ leen fi bàyyil waaw est-ce que loolu lay loolu lay xamle loolu mooy état des lieux cest dire moi moi en tant que mën en tant que gestionnaire quand on me nomme dans une direction su may def l'état des lieux je fais un état des lieux global chaque direction bu kii wala dans chaque service dañ def un état des lieux et puis ñu boole yëpp mu nekk un état des lieux global mais la passation d'abord de service avec qui ça c'est présidentiel Mais en réalité, comme on dit, la vision appartient au président, mais la traduction de la vision, c'est les ministères excellents. donc état des lieux moom tax ma jaaxal benn. benn. deuxièmement mooy nomination à la tête des directions boobu moo ma gën a jaaxal. <laughs> parce que le grand xam nga nomination nu muy demee. nomination je pense que balaa ñuy nommer au moins il faut euh, d'abord euh, mu nekk sur proposition du ministre ou si dans son secteur benn boo xam ne. day am ay ay dañuy dañuy dañuy dañuy def euh, euh, comment dirais-je une enquête de moralité par rapport à ces personnes la après jaaral ko ci ministère secrétaire général def une proposition ministère ñëw donc boobu tegeeku na deuxièmement mooy li ñu waxoon dañ ne à la tête des ministères dañuy def appel d'offres ou appel à candidature des directions pour que ku nga xam ne ni sénégalais bu manti nekk mu ñëw léegi yan ministre la ñuy yan direction la ñuy fal tey que ñoom li ñu jaayoon li ñu jaay sénégal yi ah li ñuy wane mu ngi bëgg kii donc damay attirer attention mais critiquer tollooguñu fa parce que il faut ñu may leen temps de grâce ñaaw ñu kii waaw mais sama xel ñaaw na si ñaari point yooyu donc yaakaar naa moom bu ma doon président tey ministres yi dafa guñu ay passation xamaguñu lu xew si ministère yi amaguñu pa lii damay ñëw rek comme dama yàkkamti damay ñëw rek ne prise de contact feuille de route donc chaque ministère ma wax ko li may xaar si moom en fonction du programme et je vais revenir sur le programme et projet parce que tantôt bi nga bi ki waxee da nga ne non Diomaye moom moo lii yàlla programme de Diomaye y a le projet ils ont vendu aux Sénégalais Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye et c'est le même projet de Sonko que Diomaye moom lay défendre tey boo ñëwee tey di ma wax ne projet ak programme donc liiwul c'est le même projet et c'est la même chose moom lañ ci indi donc beneen bi mooy pour revenir un peu si euh, ñun li ñu perdrons le pouvoir moi je pense qu'il faut le dire et oser le dire les gens le disent de manière démo euh, comment dirais-je xaw ma nu mu ko wax dañ koy rafetal quoi dañ koy kiwal mais en réalité c'est Macky Sall qui a fait perdre à la coalition Benno Bokk Yaakaar pour man pour plusieurs raisons man nga si bañ d'accord benn raison bi mooy yaay <coughs> un manque mais Kébé de solidarité mais Kébé bu mu la ko bas na la bàyyi nga wax. non non man damay wax man man personne ne peut. ah mais parce que pour pour pour ceux qui me connaissent. non mais mu ni Macky Sall ngeen ko non non déedéet déedéet. non mais bu d'accord mais bàyyi ba jot parole. bul ko ko bas non bul ko ko bas bul ko ko bas bàyyi ko rek mu expliqué da nga wax ba dara. je suis je suis de la coalition Benno Bokk Yaakaar je suis de l'APR je suis membre n'est-ce pas donc de la convergence des cadres je suis le président n'est-ce pas donc des euh, coordonnateurs des cadres républicains de Yoff mais pour dire vrai pour man. Macky Sall moo faire per à la coalition Benno Bokk Yaakaar. comment benn bi mooy manque de solidarité bi nekk suñu te mu joge si moom. parce que Banda wax na ko sànq l'élection de 2000 locale de 2022 moo ñëw ba fii c'est les prémices. mooy Abdoulaye Diouf Sarr qui a mais a fait perdre à Abdoulaye Diouf Sarr. c'est le président mais parce que ñu jël ku nekk. ku toll ni Abdoulaye Diouf Sarr le président jël ko choisir ko ne ko yow yaay candidat pour la ville de Dakar après son chef de cabinet Mame Mbaye mu jël ko bàyyi ko mu nekk candidat et Mame Mbaye Niang tous ses discours c'était contre Abdoulaye Diouf Sarr Mame Mbaye Niang n'a jamais fait un discours pour wax ci yeneen candidats yi li muy wax yëpp discours je parle sur le compte de Balla bu saa yu waxee rek day chargé dafa mel ni que moom gouvernement bu mu nekkoon moom contre kii bi et puis mu jaxase liwu sénégalais ak yeneen ak yeneen yoo xam ne du mu si dugg donc loolu moo dem tey ba kii et le même mu ñëw taxaw encore ci di di di di clash euh, suñu candidat Amadou Ba moom ak ñeneen kii mais Mame Mbaye en chef nekk si kanam ça veut dire que lii xew yépp président lu tax ma ne président parce que moo ko seetaan bu fekkee ne moo nekk kilifa gi war a la fin de la récréation bàyyi nit ñi di doxal bu yàqoo dañ naan moom la donc loolu laa ko jàpp bi mooy référendum la woon c'était oui ou non la continuité du pouvoir. ou la rupture. continuité rek wala quoi oui ou non dama ne. Ah, oui ou non la. la continuité du pouvoir le pouvoir soit Amadou Ba. oui ak président Macky Sall. ou non pour la continuité. oui. pour oui ou non pour ñu si ànd. non bu kii léegi buñ ne buñ ne sénégalais yi. oui ou non après sénégalais yi le même sénégalais président waxoon ne mooy nekk directeur de campagne le même sénégalais gis. ñu dem ba ba élection yi bañ dugg ba ci biir campagne bi ñu naan président jàppale na Amadou Ba jàppalew ko jàppale na ko yow bañ bañ def cette fameuse réunion ba président am le besoin di woote euh, euh, le secrétaire exécutif national pour mën a joxe encore mot d'ordre alors que le de la candidate était réglé depuis très longtemps loolu lu muy nurool il faut aussi que sénégalais ñu bañ leen nax donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne dañu kii beneen affaire bi fi may jéexale mooy effectivement ñaari adversaire lañ amoon on avait l'opposition comme adversaire on avait le pouvoir comme adversaire comprendre nga li ma wax. déedéet yow kay la ñu déglu. ñaari adversaire la ñu amoon. adversaire l'opposition en interne non non non globalement. on avait l'opposition comme adversaire parce que dañ am candidat dafa mel ni candidat Amadou Ba pour dire vrai te pas le candidat du pouvoir parce que quand dafa doon faire face. et à l'opposition et au pouvoir parce que ña nga xam ne nii ay ministre lañ yu mel ni Thérèse ñëw taxaw di wax jusqu'au dernier moment ba mu des xaw ma combien de jour nga ñëw taxaw parce que na président woo na leen ne leen léegi bàyyi leen ànd leen ak alors que président boobu candidat yëpp dañ taxaw mu ne candidat yëpp kii laa si choisir la coalition choisir kii donc man pour man ce qui s'est au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar li créé loolu c'est l'APR parce que problème bi yëpp foofu la si seen biir la. si seen donc loolu laa si amoon lu may wax nga baax. mais euh, li président yenn kàddu yi tamit est-ce que tamit nekkul ni loolu aussi moo gën a wàññi gabari wala doole seen candidat ay naan moo ci tane xam nga. Amadou Ba dire moo ci tane bon c'était le moindre mal. et surtout surtout seeni analyse aussi mais dangeen ngeen di analyser Amadou Ba sa part de responsabilité. da ngeen ko waroon analyser. Amadou parce que Amadou bu ñu la nee yow la war nga mën a jël say matuwaay ba doon ñu la liñ la liñ lay joxoñ baaraam ni loolu nga. nit ku ne nu mel. ah déet yow déjà ñu ngi la ni yow yaay premier yow yaay suñu candidat nga ngalaabu rek ci post premier ministre bi alors que da nga waroon jël say responsabilité jëndi manteau bi delloo leen ko dugg ci réew mi wax ak sénégalais yi wane ni da nga tolloog yeneen candidat yëpp mat nga li nga doon. mais tey mu naan day def conseil des ministres xaw ma astafurlah euh, tournée économique di def ay voilà après finalement dañ doon wax naan mais kii est-ce que réellement. mais Birame Birame je m'excuse. allez-y je dois pas vous couper je dois pas vous couper. monsieur le maire moom dina ma. Euh, dina ma wàcc il faut aussi relever un fait important. Euh, c'est pour la première fois ñu dem ci ay élections ci biir processus bi. ñu organiser amnistie ci biir processus bi génne ay candidats yoo xam ne ñu ngi woon kaso élargir des milliers de de de de de détenus yoo xamante ni kenn xamul seen situation juridique carcérale carcérale loolu yëpp euh, sénégalais yi dañ ko liiree comme une situation où Macky a adoubé a adoubé le candidat Bassirou Diomaye maanaam ci wolof da koo jàppale. da koo jàppale. Ah loolu lañ jàpp beneen bi mooy aussi il faut pas qu'on s'en man li ma jàpp moo di effectivement on a fait un dialogue euh, c'est le dialogue national. Hmm. def nañu deux fois dialogue am na benn dialogue boo xamante ni. effectivement moom bon bon vraiment vraiment. non c'est un dialogue. c'est un dialogue mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le dernier dialogue. ça le dernier dialogue jàpp nañu ne am na ah, xam nga li ma la no parce que dialogue moo tax dialogue moo mën a tax euh, ñu mën a élargir ay candidats ñu mën leen a euh, permettre ñu dem defi campagne ensuite dialogue moom mën a tax ay détenus ñu bàyyi leen jëlal jëlal pour jëlal par exemple ñu bàyyi mille détenus chaque détenu avec sa famille et ses mais yooyu yëpp day impacté beneen bi aussi mooy jàpp naa ni li nga wax euh, war nañ ko mën a war nañ ko mën a saytu aussi parce que aussi bu ñu jëlee candidat au sein de Benno Bokk Yaakaar muy le candidat Amadou Ba moom aussi dafa war a jël ay responsabilité ba mu jeex takk ba mu jeex takk et ça pour man loolu yëpp dafa def dafa def défaillance moi à une semaine de la campagne ou bien deux semaine avant la ou bien une semaine avant la fin de la campagne moi-même je déplorais la communication euh, visuel de notre de notre candidat au niveau de Dakar. <laughs> dans les panels dans les panels euh, du de de Benno Bokk je disais que je ne sentais pas n'est-ce pas sur le plan visuel l'image de notre candidat à Dakar moi personnellement je me je le disais deuxième chose aussi euh, euh, gulet ñuy def candidature ñuy def euh, élection boo xamante ne pratiquement tu ne pas un comité électoral départemental tu ne sens pas un comité électoral dans les arrondissements am na ñu moom la candidat ñu mu waroon waxtaanal ci biir APR sax da na a léser. non c'est-à-dire que il faut qu'on maanaam Benno Bokk Yaakaar la. gënoon waxal APR hmm. kese du Benno Bokk Yaakaar. oui mais bu dee APR wax ak say mbokk. non non dama bëgg a wax ne APR kese du Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar presque trois cent et quelques partie ak organisation la APR kese nekk fa beneen bi aussi tey nunu réclamons toujours de Benno Bokk Yaakaar jusqu'à preuve du contraire parce que jàpp naa ni ñun au niveau du parti socialiste bi ñu jeexalee élection yi ba léegi defaguñu secrétariat exécutif national pour def une évaluation pour xool quelle est la conduite qu'on va tenir à dans l'opposition donc loolu pas que kenn du jiitu euh, kenn du ko jiitu ci pax kooku da ngay nekk ba en tant que militant ñu dem ci scène bi ñu évaluer ñu wax ne maintenant posture bi le parti socialiste di am. donc loolu aussi euh, dañu ko dañuy wax Benno Bokk Yaakaar mais sous réserve parce que jàpp nañ ne effectivement on était la grande majorité présidentielle mais aujourd'hui bu ñu demee ci opposition bi nag ay la yëwoon ku ci nekk ak na ngay tojee sa bopp sa bopp xat euh, ñambe daane la ma jox doyen nag mu analyser li ngeen fi wax yëpp yëpp parce que man moom bu ma ci waxee monsieur le maire dina ma génne plateau bi damay damay wax ne que Amadou Ba était un bon candidat moi-même je l'ai parce que je suis dans la coalition alors que dans le passé tout le monde sait la dualité qui a toujours existé au sein de la coalition du parti entre Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr. tout ce qui est Abdoulaye Diouf Sarr je suis tout ce qui est contre donc je suis un. mais Abdoulaye n'a pas mouillé le maillot. moi je suis un pro Abdoulaye hmm? si waxoon ngeen ni Amadou Ba n'a pas mouillé le maillot. et en retour on a vu que. Abdoulaye Diouf Sarr n'a pas mouillé le maillot durant la présidentielle man gisuma ko. non non il a il a mouillé le vraiment mouillé le maillot. j'étais avec lui pendant euh, tout la campagne il a vraiment. mouillé le maillot da lay rek. waaw da may Birame waaw léegi léegi fu may fu may ñëwee. Birame fu may ñëwee mooy. Euh, damay wax ne Amadou Ba était un très bon candidat. très très bon candidat. mais le problème c'est que euh, ñun ñoo am suñu candidat ba pare fragilisé ko ñu ko fragilisé. mooy si suñu communication. Benno ou l'APR il faut que ça ñu def le distinguo. non xam nga man dafay une analyse. tout à l'heure wax naa la tu as posé une question. par rapport à la défaillance la défaillance c'était au sein de l'APR ou au sein de Benno. c'était au sein de l'APR j'ai dit le problème mu gangréné le Benno Bokk Yaakaar. parce qu'en réalité c'est un ensemble n'est-ce pas donc c'est une chaîne. Mm-hmm. bu fekkee ne daño am candidat. candidat boobu noonu lu toll ni candidat présidentiel man man naa wax sax euh, candidat au local parce que ku ne am nga droit nga may ambition et cetera suñ la jëlul nga kii loolu soo sax mën nañ ko comprendre parce que ça c'est la démocratie en réalité mais lu toll ni candidat présidentiel ñu am ko on opte pour la continuité ñu ne kii mooy suñ candidat suñu gañee ñu ñëpp ñu dem toogi suñ gañee ñu resté waat ay nit jóg di développé ay wax walla ay argument yoo xam ne ni bu si génn rek day fragiliser suñu candidat bon bu ñu ñàkkee ñun ñoo ñàkkaloo suñu bopp. d'accord doyen ma jox la kàddu gi nga analyser euh, li koy jot a ruusut. waaw c'est un dafa metti boo daanoo doo xam looy wax. Euh, cest la défaite. pour nga expliquer ko du ça tient pas quoi. <laughs> non la défaite elle elle peut elle s'explique. quand quand il a une défaite euh, waxoon naa ko sànq c'est la première grande défaite de de Benno. bon maintenant explication yi dafa bari par exemple c'est clair que ñoom ñëpp lu ñu wax c'est que Amadou mooy candidat bi mais Amadou Ba amul woon stratégie électorale. jusqu'au dernier jour jusqu'au jour du vote Amadou n'a pas une stratégie électorale c'est une première Benno lu tax Macky maintenir que 2010, maintenir que 2019, c'était une stratégie. Ils ont mené toutes les élections locales, législatives, présidentielles sur la base du, socle organisationnel de Benno. Oui. Mais Amadou Ba n'a jamais eu ce socle-là. maanaam amul stratégie. amul stratégie amul socle organisationnel. comment un candidat d'une majorité présidentielle muy campagne on n'organise pas un meeting de lancement. on n'organise pas un meeting de clôture. Et, et, et l'investiture Alors aussi, que tu as tous les son parti n'a pas, ne l'a pas investi. Ils l'ont investi. Non, le jour de l'investiture à l'hôtel, c'était pour montrer que Macky Sall est toujours le président de la paire. Oui, oui. loolu ko gën a fës loolu ko gën a fës ça c'est à lecture. ah bi ñu xëyee journaux yi li ñu gën a fësal mooy. non non non ça mooy Macky Sall tient toujours les rênes. ça c'est à ah mais mais mais a non loolu li nga wax dafa am solo parce que en réalité bi ñu ñëwee foofu Amadou Ba ne fa président ne mais star bi c'était le président moom laa la alors que star bi mu waroon nekk Amadou Ba mais c'est ça donc loolu il faut le benn star moo fa mënoon am muy Amadou Ba moo waroon nekk la vedette mais on a vu que c'était le président Macky Sall lañ doon moom lañ doon sampat mu jiite affaire il faut le dire donc il a fait je mais en on en fait perdre Amadou Doyen. Mais, mais c'est ça, c'est ça la, la, la stratégie. Et la, la, faiblesse de la, stratégie d'Amouba, elle est là. On est en congrès. Le congrès se transforme, on dit que c'est le Macky Sall, le président de la BR. Tout le débat du congrès tourne autour du président qui n'est pas candidat. Donc la stratégie, elle est claire. L'APR n'a pas misé sur Amadouba. Le, le, euh, origine euh, Amadouba c'est qu'on l'a sabordé à l'intérieur de, de la paire c'est un sabordage okay. maintenant nag bon il a des adversaires qui qui se qui sont ne sont pas déguisés il a un président qui ne l'appuie pas de manière franche bah, il il a des problèmes c'est pas lui le chef du parti c'est pas lui le chef de la coalition donc Amadou Ba pour moi il a mené seul sa campagne avec les moyens du bord maintenant comme il l'a dit comme euh, conséquence c'est que on on a on l'a combattu de l'intérieur de l'intérieur donc loolu moom c'est une explication qu'on qu'on qui est visible maintenant deuxième explication bi c'est euh, bon Benno n'a pas été euh, Benno a choisi Ba en en en en euh, je crois c'est de bonne foi le choix de Benno Mais je ne suis pas sûr que le choix de, de l'APR soit un, choix de bonne foi. Gis nga Amadou peut-être que l'APR aurait dû avoir le courage d'organiser des primaires. Ouais. Ça, ça c'était plus sincère. Mais ils, n'ont pas voulu de faire des, primaires. Ils l'ont embarqué, c'est le candidat, c'est le candidat. Et le bon, premier, le premier, le premier de, des apéristes. Euh, non c'est un choix politique pour moi c'est que c'est la stratégie qui est mauvaise déjà on a perdu du temps parce que dès l'instant que le président a annoncé qu'il va pas briguer un troisième mandat ou un deuxième quinquennat voilà maintenant la, de cet instant ils ont laissé passer combien de semaines avant de désigner Amadou Ba mais dans ce sillage là c'est-à-dire que le, troisième mandat c'est ça l'origine de la défaite de Benno on a fait comprendre Jusqu'au aux Sénégalais dernier que moment, élire Amadou Ba, c'est Non, non, non, Moi, ce que je dis, mmh. voulait être candidat au troisième mandat. Hmm. Il a bloqué son pays, il a bloqué son, son, son parti, sa coalition entre le oui et le non. à quelques mois de la présidence, il se rend que ce pas possible. Hmm. Alors que s'il avait laissé le choix au parti, bien avant ça li may wax ni c'est 2022 2023 hein. jusqu'à 2022 s'il avait clarifié sa position. non s'il avait dit au parti choisissez notre candidat. waaw ah, mais su Amadou Ba suñ ko jëloon deux ans avant. wala trois ans avant. mais il va compétir. bien mais Macky n'en a pas voulu. donc pour man il a une responsabilité c'est-à-dire que. nga xaar bu mu des quelques mois. <laughs> loolu la loolu la Kébé di bañ. parce que au moins ñi wax ñëpp xaw nañu situer sa responsabilité. non ça c'est objectif. c'est c'est objectif yow situé woo ko Banda. non non non c'est-à-dire que euh, ce que euh, le grand Albert dit c'est vrai c'est toujours les facteurs internes. Oui. il y a deux il y a deux facteurs. il y a les facteurs internes et il y a les facteurs externes. Oui. les facteurs internes on en déjà épilogué c'est-à-dire que aujourd'hui euh, ñëpp jàpp nañu ni Amadou Ba était candidat de Benno Bokk Yaakaar il n'a pas été soutenu exhaustivement par tous les membres de Benno Bokk Yaakaar en particulier l'APR ça c'est défini le deuxième les deuxième élément c'est que depuis 2019 bi ñu réélire président Macky Sall le président Macky Sall a fait un deuxième mandat à problème d'abord il y a eu sur le contexte international la crise de l'Ukraine avec l'URSS il y a, il y a eu les prémices de la crise euh, Israël-Palestine, il y a eu la crise à Covid qui a été vraiment un problème mondial, planétaire. loolu indi ce qu'on appelle les émeutes de 2021 qui étaient déjà des signes annonciateurs que vraiment euh, les populations avaient suffoqué. ba pare nag loolu bokk ci Euh, problème mu Covid bi problème mu période boobu ñu ngi nekk ci période du nu ko tuddee mooy bu kenn génn sa kër kii bi. couvre feu couvre non pas couvre feu mooy période bi ñuy def couvre feu bi ak nuñ ko tuddee am na un terme. waaw mooy euh, mooy période confinement bi. ak yooyu les gens l'économie avait dafa étouffé. xam nga góorgóorlu bi nga xamante ni dafa war xëy suba pour dem daani dooleem pour indi mais kooku boo ko nee toogal confinement. en euh, euh, parallèlement ñuy am ay problèmes yoo xamante ni ñu ngi koy jëlee ci Covid bi mu nekk ay problème de gouvernance wala problème de gestion des fonds yooyu day indi ay problèmes maintenant yooyu yëpp accumulé wu euh, ba pare sénégalais yi jàpp nañu ne ñu bëri ci sénégalais yi dugal nañ seen bopp ne Macky Sall jeexal na mandat warul def troisième mandat Macky Sall aussi devait pour aider. mais war ko woon pour aider Benno Bokk Yaakaar. pour aider Benno kooku xam nga c'est un débat. non parce que moom moo ko waxoon non c'est un non c'est un débat qui n'est pas. non qui n'est pas opportun mais je vais te dire rek non on est en train on est en train de non on est en train d'évaluer les facteurs externes. mais xam nga bu fekkee da nga war a jël benn décision pour wax ne du ma nekk candidat. soo ko teelee def dina tax ñi nga ko ñi nga ko seqal mën a toog ci seen biir en leur sein waxtaan ba tànn candidat boo xamante ni mais ñun candidat bi ñu présenté c'est même pas à trois mois des élections donc il y avait une impréparation ci Dauphinat bi il a jamais eu de dauphin bon ensuite aussi les sénégalais fekk fekk na opposition bi liggéey bi mu war a def ci sénégalais yi def na ko gëm loolu ne sénégalais yi ne euh, la vie est chère dëkk bi dañu sonn. Ah il faut la vie est chère kenn gëmloo ko kenn ku nekk da nga déglu ma gëmloo nañu ne bon effectivement ñëpp koy dundal seen bopp. Ah. donc comme ñoom ñëw nañu am nañu yaakaar ne. incha allah non comme ñoom ñëw nañu am nañu yaakaar ne. ils vont d'abord attaquer la vie chère te loolu bu ñu ko defee Sénégal yëpp lay arrangé beneen bi aussi mooy euh, gëmloo nañ ñu ni euh, troisième mandat warta am ñu ngi commencé am ay problème mu non déglu ma te ñu ngi commencé am non musu euh, musu fi am troisième mandat musu fi am boo seetee avec Ablaye Wade problème bi foofu la jóge Ablaye Wade à la différence de Amadou Ba Ablaye Wade il avait tout le soutien interne de son parti mais fekk na sénégalais yi fii au Sénégal les gens commencent à et puis loolu il faut étude pour mu confirmer ko léegi quand les gens commencent a à penser que durant au bout de dix ans au bout de douze ans il faut qu'il y ait alternance c'est ce qui arrivé à Abdoulaye Wade c'est ce qui est arrivé à Macky Sall maintenant on ne sait pas ce qui adviendra avec euh, l'actuel régime mais loolu ay étude la ay mais dama bëgg wax ne rek euh, euh, posture bi nga xamante ni ci la Benno Bokk Yaakaar nekkoon dafa amoon ay problèmes internes mooy la candidature de Amadou Ba n'était pas portée exhaustivement ou bien exclusivement par tous les membres de Benno Bokk Yaakaar ensuite externe aussi il y avait la vie chère il avait beaucoup de problèmes il y avait aussi un problème de d'opacité dans la gestion il faut le relever parce que y avait il y a eu des problèmes de communication ci wàllu euh, audit yi le fait que parfois président balancé que j'ai des dossiers sur sous le coude mais yooyu yëpp dafa doon indi ay problèmes mais yooyu yëpp Sénégalais dañ ko emmagasiné moom lañu jëndee ci ci moo tax d'ailleurs boo seetloo def naa benn analyse wax ne Bassirou Diomaye Faye ak Amadou Ba kese ils ont eu 90 pour cent des te mais nag aussi élection yi daf ñu arrangé ci dara dafa dafa def deux pole dafa def benn pôle boo xamante ni c'est un pôle de l'opposition bu fort boo xamante ni c'est autour du président Bassirou Diomaye Faye moom la ñu porté au am beneen pôle boo xamante ni mooy pôle opposition bi <laughs> oui c' est les 35 pour cent. c' est le pôle maintenant les autres yëpp. 0 virgule 0 virgule ñooñu ma je pense que <laughs> vraiment ils sont bons pour la retraite il faut qu'ils aillent à la retraite kenn non non non <laughs> non il faut qu'ils aillent à la retraite non écoutez non non non mais non non attaqué ce sont les sénégalais ce sont les sénégalais ce sont les sénégalais qui ont estimé que oui. ils doivent aller à la retraite parce que je ne peux pas comprendre qu'un candidat vienne passe le test <laughs> le test du parrainage avec 44 000 et quelques euh, intentions de vote et vient ne peut pas se retrouver avec 1000 voix c'est inadmissible Euh, les 0,0 moom vraiment bàyyi leen moom fii fi représenté te xam nga kenn du les 0 virgule loolu day metti charge boobu moom vraiment dañ leen bàyyi ñu digérer seen vertu ba ci kanam kanam Basirou gars yi diagnostiqué na mais yow li nga wuuteeg sa sa ñaari co-débatteurs yi mooy yow président Macky Sall daal bëggoo ñu imputé ko benn responsabilité ci chute bi nga xamante ni moom moo am non du ma wax ne duñ ko imputé responsabilité mais du ñu jëlee fii këpp non këpp ñu ko mais daf ci am waaw mais xam nga bu ñu analyser man ci début bi dama bokkoon ci ñi doon wax ne en vérité président nañu firi wala mu lettuñ maanaam dafa waroon a wax dès le départ ne du ma nekk candidat comme ni mu ko defee au dernier moment mais je me suis rendu compte bi mu waxee ne du ma nekk candidat que su ko waxoon ci la doon yëf yi ndi kon waxuma waxuma waxu ab APR wala benn mais réew mi du dox gis nga oui xam nga lu tax gis nga leadership ku doxalul nga jëli ko fa yaay président de la République non mais bul ko yaakaaree noonu gis nga tey ndikoon ci ay ay ay combat internet la ñuy nekk positionnement ku nekk parce que wane nañu ko gis nga boo wanee ne yow bokkatoo sa leadership dafay dañ leadership boobu moo jeex moom la gars yi dindi kenn déglootu ko sa à dire il faut aussi ñu nangu loolu kenn déglootu ko moo tax après am ñoo xam ne. nii ñun ci biir lay nekkee ci opposition di gérer leadership. même bu amee ñu la contesté yow nga nekk ci pouvoir sa leadership ñu war koo mën a. non du benn parce que fële espoir dafa am gis nga li ñuy wax yaakaar l' li muy suscité dafa bëri parce que ñi ñu ànd ak ñële ñu ngi ne ah ñun kat saa yi buñ gañee kat maa ngi xaar lii maa ngi séntu lale maa ngi séntu lale kon donc nañ ànd ak waa ji mais fii kenn séntootul dara. amatul décret pour c'est-à-dire que dañ naan lii jeex na duñ ko ko te xoolal contestation yi c'est au dernier moment dernier virage bi la gën a bëri des membre du gouvernement contestés et mais en vérité en vérité le président de la République tey moom dafa jiital la Sénégal Macky Sall dafa jiital la Sénégal. tu n'es pas prudent dans ah. son propre jeu. non non parce moom moo dem ci biir mu ni am na yenn. Euh, waaw mais est waaw ko bari ne est-ce que mën naa. mën naa loolu tamit moo continuer ci législative bi waaw xam nga nee naa la responsabilité moom am na lu mu ci am. mais dama ne duñ jël yëf fii këpp ko ko. d'accord ku ci nekk lan nga ci am comme responsabilité. dama la doon analyser loolu te yegg see guma ma ne la leadership bi. daf ko perte. parce que joxe tut benn responsabilité nit ñi nee nañ pare na et cetera et mais président bi muy tànn Amadou Ba. mais kenn sexalu ko lem kenn forcé wu ko ko. Hmm. il n'était pas sous la contrainte en vérité. nañ waxante dëgg aussi nag mais ñun ñoo ko jox carte blanche ne ko tànnal mu tànn gars yi contesté mu forcé dem maintenant quelle est la responsabilité de Amadou Ba. mais président dans le silence moo tànn wala Niass la wax ni ko tànnal ma. non xam nga aussi président bu fekkente ni dañ ko ne tànnal ñun ñëpp ñoo ko ko wax benn PS ak AFP ak APR ñëpp d' accord ne nee nañ ko jox nañ la carte blanche pour nga tànn. Mm. mu ne leen man dinaa seet. koo xam ne dinaa ko fi teg pour mu xoolal ma des critères qui sont remplis ñan ñoo remplir critères yi mais bi ñu paree y avait une commission présidée par Niass surtout Niass moo ko yore woon mais dañ ko ne kii moo remplir critère mais su fekkoon ni moom bëggul Amadou Ba tànn ko mu tànn Amadou Ba ndi kon da leen di wax ne du ma ko jël parce que yéen a ma jox carte blanche mais defu ko c'est-à-dire que loolu lay expliquer kon donc bonne fois am tànn Amadou Ba am na maintenant yan facteur moo ñëw entre temps des facteurs intermédiaires man dama ne la linge sale na se lave pas en famille euh, ne en, en famille plutôt man sama posture membre du cabinet du président sortant permettrul ma may génne yenn yi membre du groupe des porte-parole également mais li nga xam ne nii tey am nañ ko lu ñu naqari war nañ ko mën a évaluer en interne wax ne lii la mais Amadou Ba lan mooy responsabilité am dans ça Amadou Ba ci li ma mën a yem rassuré wuloon les gars de la paire c'est-à-dire que ñu ci bëri li ñu lay wax mooy dañ doon toog naan attention daf ñuy écarter il a sa propre équipe. est-ce que du dafa wone wane daf ko wane woon seen biir. waaw waaw mais parce que parce que acte yi mu posé en vérité c'était ça mën nañ ko interpréter noonu donc moom la ko waroon tey moo doon mu rassurer waa APR parti bi nga xam ne fa la bokk. parce que xam nga ça la question de la légitimité également souvent en politique dañ koy poser en terme de maa fi nekkoon démb kon donc du ma nangu. keneen ñëw fi et cetera mais ñu la waroon a rassurer parce que ñooñu gisoon nañ ne kii kat bu toogee ñun ñu écarté wu. mais kon donc moom am na ci responsabilité nag de façon superficielle laay wax. Hmm. comme li ma la wax dafa am loo xam ne ci biir famille lañ koy lañ koy lañ koy régler. parce que on une famille politique. donc lan moo ci responsabilité am kon bu ñu jël yëpp ne président président nag su fekkente ni toog na ñu ne mu dégg ay mbir mu jël décision. pour wàll solidité institution yi conseil constitutionnel ne ko attention li nga def du yoon du dëgg mais valider nañ candidature koo xam ne mu ngi ci kaso mais ci yan critère euh, lañ ko valider. parce que ñoom conseil constitutionnel ñoo ko am. waaw non non ñoom ñoo ko am. contesté wu ma ko waaw lay wax non je suis d'accord. déggoo ma la la ñoom conseil constitutionnel ñoom teg nañ ko ci fii lañ ko teg ci droit lii lañ ko euh, maintenant am ñu d'accord am ñu d'accordul mais. Bassirou Diomaye fay en prison mais condamné wuñ ko. kenn wu ko sax. waaw moom laa la wax. kon donc tey génnee ko ci prison mu dem campagne yi. kooku c' est légitime c' est normal c' est légal. oui yaa ngi dégg. Mhm. Euh, maintenant amnistie bi mais kooku le président moom la yàlla may en vérité nag. parce que pouvoir boobu génnu jomaay mu ngi dépendre ci amnistie bi n'oublions n'oublions pas. waaw mais génn jomaay bi mais jomaay jomaay même sax. téye woon ko sax parce que poste Facebook lañ ko jàppee excusez-moi le président jomaay. Euh, parce que nous sommes des républicains. le président Bassirou Diomaye Faye mais bi ñu koy jàpp il n'était pas président jomaay bi ñu jàppoon. waaw d'accord boobu poste Facebook lañ ko jàppee. waaw mais bi ñu ko jàppee jugé wuñ ko. mais nit kuñ jugé wul. mais mënoo ko empêcher mu nekk candidat la ko empêcher la tax mu nekkul candidat manoon a tax mu génn sans amnistie pour man sama gis-gis bu gàtt mais amnistie bi président dafa toog Sénégal nekk ci réew moo xam ne dafa naroon a nëm nëmeeru on a appelé à l'insurrection ñu nangu ko président taxaw fair face ba taxawal république bi dëgëral ko téye ñim yaakaar ne ñu considéré ak éléments yi d'information yi ñu am ne ñii ñoo bëggoon a def insurrection mais bu leen téyee ba pare nag ba léegi république islam stable ñu war a dem élection mais moom tamit yoon may na ko sañ-sañu mu utiliser li ko yoon may muy amnistie bi nga xam ne yoon may na ko ko ba pare amnistie boobu nag dafa def projet de loi euh, mu dem assemblée nationale ay député wate ko looloo tax mu doog a jàll mu doo ko promulguer kon ba léegi man gisuma en aucune manière lu tax ñu mun a accuser le président de la république maintenant euh, le Sénégal au cœur le dit ce que moom soutenir camp ba nga xam ne nii Sénégal élection yi dina jaxasoo wala ndax mu soutenir le Sénégal ba nga xam ne dina fi bàyyi une démocratie stable que le meilleur gagne et je pense que posture boobu le président Macky Sall amoon. mais surtout le conseil eh, eh, eh, constitutionnel moo ñu may ay élections. mais mais dama ne président bu créé woon. bu créé woon crise dama ne. conseil moo ñu may ma ne crise manoon nañ ko mënoon na am bu crise amoon président. lu yoon may na ko. dégg nga li nga wax créé président créé woon. non dama ne bu crise amoon. parce que président mënoon na wax maa bañ. li di conseil wax du ma ko def. mais c'est-à-dire que nit ki aussi dañ koy nangul grandeur am hauteur am il di dit que man ma tànn nañ candidat tànn na kii mooy suma candidat mais candidat boobu noonu il n'a pas rassuré certains ñu contesté ko mais président contesté wu ko benn yoon. ñu def dernier beneen bi beneen bi may ma rek c'est important temps bi jeex na waaw mais mais mais déglu naa leen de bu bëri sax waaw waaw waaw may ma rek parce que parce que tey gis nga nguur boo ko nekkee di dogal yor lépp yaa baax yaa mais il suffit que nga perte rek ñu ne yaa bon mais lu tax nit ñi waxuñu woon lii lu tax on n'avait pas dit ça sur Macky Sall pourquoi waxuñu ko c'est ça mon problème non mais bëriwul benn benn la les sales nañ ko laabe ci famille man loolu ay invité mes camarades là yaa ngi dégg maintenant Sénégal fi ko Macky Sall bàyyi je pense que démocratie bu stable la fi bàyyi mais également des indicateurs macroéconomiques yu baax waaw yooyu dinañ ci ñëw yoo xam ne nii vraiment des économistes yoo xamante ni peut-être mais mën nañ ci wax lu bëri waa mais après beneen yoon lay doon parce que bii euh, ba Njambe dernier tour table bi rek dama bëggoon ñu consacré ko ah euh, président dem na dañ lay dellu si ah. ba léegi mooy chef bu APR yéen APR ngeen bokk ba léegi mooy jiite Benno Bokk Yaakaar euh, monsieur le maire Benno la bokk léegi lan mooy ëllëgu Benno yi am na yeneen échéance yu ñëw le temps presse te war ngeen évoluer war ngeen xoolaat l' avenir de la coalition Benno ñii ngi wax famille libérale ñii di wax famille gauche et cetera finalement est-ce que seen ànd bi yaakaaroon ni daanaka egg na terme bon en tant que analyste ou acteur politique soo defee une analyse globale je parle parce que bëgg benn même benn mu ngi dund benn mu ngi mu ngi fi. te leer na ni benn dundatul. wala mu ngi sous sous perfusion. wala sous respira euh, respirateur. mais moi je pense que je pense que euh, benn day dem. donc loolu nga gëm conviction gëm naa ne benn wala buy amaat ñu tëgg leneen la recomposition de l' espace politique mënul ñàkk c' est inévitable parce que li am mooy il faut que mu am après bu buñ paree si yëpp pierre trois mois ñoo xam ne ñoo nekk au pouvoir mm-hmm. et ils ont déjà commencé parce que def nañu pare benn réunion pour euh, déterminer effectivement vraiment le pôle bi nga xam ne nii ñooy jiite ñooy ànd ak président mm-hmm. donc loolu mooy ñi nekk au pouvoir di ko exercer. mais il faut mu am beneen pôle. bien boo xam ne mooy le pôle de l' opposition. bien sûr maintenant dans combien de temps lay composé wu man pour man y les élections législatives qui se profilent à l'horizon parce que ce qui est sûr mooy que au mois de septembre suñu atteindre les deux ans ce qui est sûr li ma jàngat politique il faut que ñu tas assemblée bi demaat à l'assemblée demaat euh, pour élection législative maintenant nag la recomposition foofu lay gën a taxawee. il faut que nit ñi xool ñan ñoo mën a ànd ñoo mais moi je pense que Benno c'était une coalition pour exercer le pouvoir maintenant que loolu jeex na ku nekk day dem xooliwaat waa parti socialiste effectivement ils intelligents xoolaat seen biir xoolaat mais ñun au niveau de l'APR ñoo war xoolaat suñu toogaay xoolaat ñi nga xam ne ni ba léegi nangu nañu ànd ak ñun ñu ànd ak ñun ñu kii mais li may ñaan li may ñaan mooy kenn bañ ci génn parce que bu fekkee ne dafa am ñoo xam ne tey dañ taxaw am lu leen rek ñu génn si loolu lépp day wàññi suñu pouvoir ba nga xam ne nii bu ëllëgee buñ taxawee duñ mat duñ mën a. parce que législative yi di ñëw c'est pas évident. mais si on continue ah. bon loolu yeggaguñu si je pense que en fait euh, li may ñaan daal mooy ñun ñëpp ñu ànd def ci président aussi doit mettre à les les gens c'est-à-dire moom aujourd'hui dem na même bu fekkee ne euh, kii na mu teg fi koo xam ne. dina convoquer les réunions du secrétariat exécutif national dina fair vivre le parti muy am ay réunion parce que un parti pour que mu exister il faut ñuy def ay réunion des instances du parti d'accord après ñu xam naka la ak nan la ak ñan ak ñan la ñu ànd si loolu noonu dem il faut ñu nangu ne maintenant nu sommes dans l'opposition mais plus au pouvoir d'accord Banda yéen yéen ngi wax waxu euh, union xawma retrouvaille mais dans tout ça yéen dans euh, au sein de du PS yéen a ngi am benn équation yéen ngi def politique de ki fa nekk dañ koy waxoon mu gérer la transition boobu ba léegi mënu leen fal secrétaire général euh, secrétaire noonu ngeen ko tuddee yéen président du parti présidente ngeen am président mënu leen fal seen président secretaire général du parti parce que fa nekk transition légère mais xanaa bale ngeen di lijjanti leneen ngeen lijjanti loolu pour PS wala am ah, sax ah, ah. xam nga ba soo dégloo sama propos wax laa ne leen ne la bu ñu defee euh, bi ñu paree ci élection yi ba léegi dafa bu ñu seet pour def évaluation pour xam ban conduite la ñu tenir effectivement euh, présidente euh, Aminata Mbengue présidente bu de transition la woon bi Feu Tanor jógee fii bi mu décédé moom intérim bi ci moom la ñëw donc comme 2020 la loolu am wala 2021 il y avait après les élections locales il y avait les élections législatives donc on était dans une période d'instabilité politique où vraiment mënuñu tenir congrès effectivement maintenant c'est le temps pour que ñu mën a en tout cas euh, terminer suñu processus de renouvellement des instances de base dem à un nouveau congrès pour euh, jël euh, souverainement pour choisir souverainement président du parti bi wala secrétaire général du parti bi mais entre fileeg boobu moom mooy secrétaire beneen bi aussi li ñu bëgg a wax mooy et ça je fais une petite intrusion man li ma constaté au niveau de l'APR moo di malgré les vicissitudes ñi waxoon déclaré candidat yëpp ñi ma jàpp ne bi président bi ñuy choisiré Amadou Ba ñi dellu si waat au rang je peux citer Abdoulaye Diouf mais aussi je peux citer Abdoulaye Daouda Diallo ça c'est le c'est les deux éléments que je beneen bi li may relever mooy euh, peut-être Abdoulaye Daouda a la chance de mieux matérialiser avec un excellent pourcentage euh, son hégémonie au niveau de Podor ça aussi il faut qu'on le reconnaisse <coughs> maintenant moi je fais partie de ceux qui pensent que l'avenir politique euh, de Benno Bokk Yaakaar aujourd'hui en tout cas dans sa configuration depuis 2019 depuis 2012 est derrière nous honnêtement maintenant il faut que nag ñu toog à notre sein pour ñu mën a xam parce que aujourd'hui euh, dire que même lo la locomotive de la coalition c'est l'APR dans l'opposition loolu moom opposition moom bu nekk dafa war a dem xam ni ngay euh, ni ngay toggee sa bopp mais ñun au niveau de parti socialiste en tout cas li ñu intéressé li ñu interpellé mooy dem d'abord dans une évaluation premièrement deuxième étape congrès reprendre xool non deuxième étape xool sunu euh, compagnonnage ak benn bokk yaakaar ndax day continuer wala du bay étape continuer suñu renouvellement et ça je pense que c'est une urgence boo xamante ni. te problème yi ngeen am yëpp seen compagnonnage ak Benno Bokk Yaakaar moo ko indi. non. depuis référendum. non non non oui non. non problème yi ñu am yëpp ay appétit personnel moo ko indi. appétit oui appétit personnel moo ko indi parce que ñu li ci ëpp ci dissidence yi li ñu jàpp mooy nit ki day def dissidence jógee ci parti bi dem créer beneen mouvement dugg ci yeneen euh, yeneen euh, yeneen. yeneen euh, coalition politique yoo xamante ne c'est des coalitions waaw donc man li ma jàpp mooy euh, li ci ëpp mooy problème mu euh, ambition personnelle moom moo moom miné aujourd'hui beaucoup de partis y compris le parti socialiste am nañu ci ñoo xamante dañoo am seen ay agenda personnel d'accord su fekkee agenda bi da nga ko dévoyé dañuy quitté dem seen yoon parce que ñi quitté woon parti socialiste par exemple taxaw Dakar wala taxaw Sénégal hmm. boo seetee ñi mu ñi mu kii ñi mu mu bokkal coalition bi ñu tasee yeewi askan wi aujourd'hui ay ñoom ñoom ay dissident la ñu ci yeneen parti la ñu jóge donc am na ñoo xamante ni euh, dissident yooyu lañuy boole def seen coalition mais aujourd'hui euh, le le le le scrutin du 24 mars a montre que il faut de euh, aujourd'hui des alternatives politiques solides. d'accord pour pour porter le Sénégal. il faut des alternatives politiques à l'image yu mel ni yi nga xamante ni moom mooy bu Bassirou Diomaye Faye bi nga xamante ni tey tous les Sénégalais l'ont plébiscité. donc c'est ça euh, aujourd'hui la problématique euh, bàyyi la deux minutes yi nga analyser ko ñu tàggatoo nag vraiment suñu invité moom du ñu wax ni waxuñu quoi non ah, vous avez vous ah, avez ah. votre temps de parole nag sincèrement Bassirou wax na Ndiambe wax na euh, peut-être bon deux à la la première remarque c'est que APR dafa nekk ci crise d'orientation l'APR l'après Macky Sall ils ne l'ont jamais envisagé mm-hmm. Mm-hmm. donc ils sont aujourd'hui retourne dans l'opposition même ba léegi la paire n'a pas fait une évaluation amul perspective la paire est trop attentiste pour man euh, conséquence tey jii bu ñu waroon gérer ñoom c'est vraiment de devoir euh, en urgence ban transition la ñu mën a am. mais il faut pour que pour un troupeau sans berger nan lay toogee di. non c'est pas un troupeau hmm. diriger un État ans. et te volatiliser comme ça parce que tu as perdu un pouvoir. Ça, ça c'est pas respectueux de la politique. Un président de la République oui, qui oui, j'ai géré 12 ans. mënoon na toog ba évaluer door a non que c'est pas politique. d'accord qu'un président nga gérer un État avec un parti 12 ans. c'est pas par un communiqué que tu vas dire euh, je je non il faut réunir les institutions ngeen discuter une phase de transition je suis président en en termes de transition. au bout de quatre mois, 6 mois, il faut, comme il l'a dit, par exemple, au niveau du PS, un parti organisé, mais il, a un, agenda. La paire n'a pas d'agenda. Pour moi, c'est le premier problème au niveau de la paire. Mais le deuxième problème, c'est quel va être le leadership Aujourd'hui, ben, ils sont décapités. Maki est à l'étranger, Amadouba n'est pas légitime, il n'y a pas quelqu'un capable de prendre l'appareil. Euh, à part peut-être l'administration, euh, celui qui gère l'administration. Donc pour moi, il y a une responsabilité quand même, d'autant qu'on va aux, aux législatives dans peut-être si on dissout l'Assemblée en sept ans. On va aux législatives. C'est irresponsable que, que, la, que la paire quand même ne présente pas, ne se prépare pas à des législatives. D'autant que le groupe parlementaire majoritaire, c'est la paire. Mm-hmm. Donc pour moi, y a un problème vraiment de crise d'orientation, de leadership. Et puis, bon, peut-être mieux pour le Il y a un manque de loyauté, de sincérité. En... C'est des clans. Gis nga loolu day paralyser appareil politique. mais euh, doyen si euh, au bout de deux ans en septembre 2024 on est-ce qu'il n'y aura pas des répercussions sur la sur les sessions budgétaires sur le travail administratif euh, institutionnel au niveau surtout du budget et sur la, les, les, lois de finances euh, initiales etc est-ce que ça peut pas impacter et ça aussi c'est est-ce que c'est pas du indiwaat benn retard dans dans la gestion non de... pour moi honnêtement euh, c'est le, le président Diomaye et euh, Ousmane Sonko c'est eux les chefs de parti il faut qu'ils réfléchissent On ne dissout pas une institution pour dissoudre. Tu ne pas dissoudre aussi parce que tu veux coûte que coûte une majorité. Les électeurs peuvent ne pas le suivre. Donc mais, il faut réfléchir. Mais pourquoi donc, ñu bind nii au bout de deux ans le président a la possibilité de dissoudre après consultation du président de c'est la Constitution. Oui, c'est la, la Constitution. Ça, ça, la paire. Non, le, Amadou on dit on, Oui. On dit pas doit. il peut. il peut c'est une probabilité. mais aujourd'hui dama ni. fii réew mi toll ak transition bi ñu nekk nii. transition bi ñu nekk nii euh, président Diomaye doogay ñëw installé wu doogay def son premier conseil des ministres est-ce que c'est opportun qu'en 2024 septembre 2024 ñu dissoudre assemblée nationale bi organiser waat yeneen élection est-ce que sur le plan économique c'est viable est-ce que deuxièmement aussi au niveau des institutions. surtout sur le fonctionnement du budget de l'État est-ce que aussi c'est viable c'est ça c'est les questions que j'ai waaw loolu la doyen doon tontu ma moi vraiment hypothèse première paisible euh, mieux pour le pouvoir pour l'opposition c'est d'aller à l'Assemblée de gérer au cas par cas avec la majorité parlementaire donc ça veut dire si ça n'y a pas de blocage de de de de, de projet venant de l'exécutif l'Assemblée peut continuer et, et même et même euh, euh tel que tel en tout cas. le si le, je pense bien. parce non, que tu as Benno qui a un groupe parlementaire. relativement la question m'est destinée ou bien c'est non non non posez vos questions dama jàpp probabilité dama ni bu fekkee projet de loi yi muy jóge ci exécutif bi di ñëw ci parlementaire muy flux ñu koy voté sans problème sans sabotage et tout. est-ce que dinañ sentir vraiment la nécessité de dissoudre. en tout je pense que il proposer loi des finances rectificative déjà déjà loolu moom c'est sans moom à la loolu c'est sûr et je que aussi euh, si nu ma jàpp y aura pas de problème y aura pas de blocage à l'Assemblée. d'accord que la loi des finances. doyen maintenant maintenant l'autre problème c'est les réformes. cest à réformes oui par mhm. exemple le poste de vice-président. nga xam ne ni ça des réformes yu nga xam ne yenn day jaar assemblée yenn kii ba dem si yeneen affaire mais réforme bi est-ce que vision bi mu am vision boobu ñun am nañu ko voilà saa reste à voir am na yoo xam ne nii du am problème sur le plan économique et financier mais lu nga xam ne ni en profondeur bu nga xam ne ñun gëmuñu ko ñoom seen projet la loolu. ça reste ngeen ci bañ a déggoo mais assemblée tamit xam mën nga waxtaane mbir ba yëpp yi gën a leer si ñenn ñi. doyen terminal ñu joxe. waaw non bi termine sur euh, un mot la affaire 2008 la judd. affaire oui que 2008 2012 4 ans nga dem au pouvoir pour taxawal ah, appareil. jafe woon na moment boobu parce que dafa nekkoon dans l'opposition conquérir le pouvoir mu jël pouvoir bi nag foofu lañ nelawee ñun en vérité foofu la appareil bi waroon mais Birama je voudrais nag remercier doyen bi ah. il a une excellente pédagogie. et vraiment il est très communicatif. ba pare wax dëgg yàlla euh, rafetul ngay wax souvent ñu lay couper. mais vraiment il garde le calme. et puis non, vraiment on doyen terminal terminal en une minute. ñu rendre la Birama. non non non kii moom moo mel ni moom vraiment j'espère j'espère dem ba mel non, non, mais, en disons, moi, c'est peut-être sur euh, Benno. C'est-à-dire qu'il ne faut pas casser Benno. Il faut que Benno soit l'opposition. Hein, mm-hmm. ah, c'est cinq ans, hein, c'est une durée. Il y a les, les élections législatives, il y a, il y a le statut du chef de l'opposition, il y a des batailles à venir. Maintenant, il faut qu'il y ait quand même une sincérité. Ça, le rapport entre le euh, Jamaï Je pense qu'il doit même faciliter l'organisation de son opposition. Bien sûr. Si Macky a perdu, c'est parce que quelque part, il n'a pas bien géré son opposition. Il l'a ouais. nié. Bien sûr, il a été bien négatif. Sûr, bien sûr, bien sûr. Alors que l'opposition, mais tu es le pouvoir, c'est vrai, mais donne à l'opposition toutes les chances de, de, lutter à armes égales. Bien sûr. Je crois que pour moi, Beno, euh, bon, j'entends les partis socialistes, ça au moins c'est rassurant. le Parti socialiste se rende compte que bon ça peut pas être comme avant mhm. le PS ne peut pas être comme avant. oui il faut temps euh, bi jeex na euh, doyen Mamour Sy Albert gërëm naa ko sant naa la gërëm suñu gan yi fi am tey Ndiambé Basirou euh, monsieur le maire Banda Diop. matul ginaar yi nag. non ginaar yi ah, ginaar yi dama nar a dama nar continuer man damay koor sax xam naa continuer waat ba ci kanam a kanam di ñaanal ñëpp kon. ñu passé feetu koor korité ci jàmm ñu wari ci jàmm teewe ko at yu bëri suñu borom nangul ñu liñ ñaan ci weeru koor ci weeru catholique yi ak weeru jullit yi karem beeg yëpp suñu borom dafa jërë ngeen jëf mbokk yi xarit ba beneen